lan mooy tasawuf suyooti yu ab xaafis la talif na lu bari ci lépp lu ñuy lu ñuy wax ci tasawuf kilifa yi tasawuf yu mag yi di ko wax layal na ko ci ahadis yu leer abdullah ibnu siddiq alxumaari yi ab muhaddis la bu mag mu ngi dëkkoon fii ci Maroc taalif na ay téere yu bare bare pour leeral ni at tasawuf min sharial islam pour leeral waaye na nit ki lu lu muy dund bu ko xamut lu mu ca yàgg-yàgg mën naa génn fii ndax nit xel dafa for ci moom ki wax ak yow ci xel wax na lu logique lu yenu na mën ngaa wéyee ci erreur jàpp ni yow la nga nekkoon lépp da ngaa jaawale da ngaa jaawale loolu nag dal nañu bare bare loolu lañuy wax ba ndax buñ la nee imaam Shafii yi ne nit bu xëyee doonam soof yu bëccëgee mu dof ne la imaam Ahmad am na ab ab ab taalibeem bu ma waxoon ne ko bu ma la gisati nga ànd ak xaaris almuhaasibi tere woon na ko mu ànd ak moom ak ni imam ahmad tollu ci xolu juliti ni imam shafii yi toll ci xolu juliti nga ni ñom déclarer won nañ ni tasawuf baxut ndax lolu julit bi nga xam bam joggé da doon gëstu képp lu bax buñ ko waxé lolé mu jàpp ni dëgg la ndax du ni kon li ma nekkoon baaxut naa ko fi bàyyi te kay naka nonu ñu andil la ibnu taymiya ni la ku sonnon ci léral tasawuf la dañuy andi sax bay andi ñoo xam dañ naan ay soofi yooyu mag lañ woon waaye dañoo tuub tasawuf dañoo dem ba am lu leer ci ne tasawuf du dëgg ñu tuub ko di ci andi ay kilifa yu mag loolu ñi koy bind binduñ ko nii rek ci zéro waaye gëm-gëm la ci ñoom dañoo gëm ni dañuy liggéeyal yàlla dañoo gëm ni tasawuf li mu yàq ci diine yéefar yi yàquñu dañoo gëm ni jub yor ay ngànnaay xeex ak ñoom mooy tax diine taxaw ñi koy bind dañ ko gëm fi toll problème mu gëm-gëm la waaye noonu ñuy bind loolu it di wax loolu yi ci kilifay tasawuf yi di ko wax ci tasawuf noonu la ay nit jóge ñu mel ni ñoom bokk ak ñoom qualité di bind ay téere di leen saaga saaga waxaab yone yi di wax ni léegi ngi yonente bi newoon na ay nit danañ feeñ te loolu xadis bu wér la yonente bi neewoon na danañ dem ba jëmmi jamono ay gone yu tuuti yu def ay xel dana ñuy feeñ mooy di di wax li gën ci lu nit di wax boo jullee ndoog ñoom da nga xeeb sa julli boo war a ndoog ñoom da nga xeeb sa koor boo jàngandoog ñoom alxuraan da nga xeeb sam njàng waaye seenu ngëm weesu wut seen bëli yi ñoom ahadis yi lañu fa xëpp leen ko ñoom itam dafa te waaye ba taalif nañ ci ay téere am na kenn ku taalif ab téere su ko risaala eh, jëlaa o zalaam في الرد على الوهابية التي كفرت العوام أم كان كنت أبتدي تدك الوهابية تكفر الأمة الإسلامية والحق أنهم هم الكفار بالوثائق والأدلة أم كان كنت أبتدي تدك فتنة الوهابية لولا أي ساعة أنت لا يخمني ديجنتي ña dof ci wet gee ak ña dof ci wet gii ñoo koy seq waaye loolu taxumaa jóg nag ñett li ak nag fii nii bala ma jàll woo ma wax fi lu am importance muy ni diine bi fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jóge la tàmbuli woon def luy nuru ak ndax ñi ñuy tudde ay ansaar te ñu dëkkoon madina dañoo jàppoon ni xilaafa gi dañ koo war a tànn ci ñoom bañ takktoo di bëgg a jaayante Umar ibn Xataab dégg ko dem fekk Abubakar fa mu nekk ni ko addunaa ngi bëgg a tukki gaawal dal di koy jital mu ñëw bam ñewé ñu wax ak ñom wax ak ñom wax ak ñom bañ xamni ki wara wut yonent bi ci muhajirone yi wara bok waye wara bok ci ñom bañ d'accordé loolu ciow loolu giim ab dir abou bakkar nek fi amul ben problème ñep top bam de ba di fi bëgg joggé la ñaan julit yi ni leen ndax man ngeen ma may ma tek fi Omar ibnu Xattaab ñu ni ko ko tan rek ba mom mo fi tek Omar Omar ibnu Xattaab nek fi lépp nit cioc mu dem ba jóge fi ba mu fiy jógee dafa wax juróom benn nit ne bu ngeen dee tànn xalifa na ngeen ko tànn ci juróom benn yi ku ngeen fi teg rek su ma demee sama kanam borom bu ma laajee lu tax ma teg ko fa danaa xam la ma koy tontu ñuy tànn di tànn di tànn ba tànn Ousmane teg ko fi Ousmane bi mu fi laata jóge am ñu rewalte ne dafa fa poste yu baax yépp dénk ko ay mbokam kon daa war a wàcc xilaafa bi noonu lañu rewalte rewalte rewalte ba rey ko te pourtant ña ko rey xel mu dal lañ ci àndal dañoo jàppoon ñu nekk ci dëgg dégg nga bi Usmaan xasee faatu nag Muhaawiya ma nga woon Shaam nekk na fa ba sax fa ay reen dëgër na fa léegi nag moom mbokkum Usmaan la mu ni tekk ni du jaayante ak kenn Aliyun am ñu jaayante ak moom ñee jaayante ak Muhaawiya diine ji def ñaari pàcc ni tëpp ci digg bi ba mu defee ñi pàcc ñaari pàcc yooyu am ñu génn ñu ñu tudde alxawaarij ñooñu déclaré ni Aliyu mii ak Muhaawiya mii ay laqat ci kat yi àdduna képp lañ yàlla taxu leen a jóg dañ leen a war a rey te wut suñ njiit mu jiital pourtant xalaat boobu ña ko amoon am na ca ku ñuy wax Abdurrahman ibnu Maljam kenn daq ko woon a julli kenn daq ko woon a jàng alxuraan ba Umar mu Xataab daa mujjoon ni Abdurrahman nañ tuxal si néegam ci wetu jàkka ci te kooku moo mujj rey Seydina Aliyun dëgër lool ci nii ah, Aliyun ab yéefar la moo tax gëm-gëm bu mën a doon tey ci lu am solo la lu am solo la nit di tey ci problème mu parce que lu toll ni li nga gëm rek mën naa doon ay caaxaan ba noppi nga gëm ko gëm ba atam caade ñooñu gëm guñ gëm diine ca lañ tegoon ni aliyun du ab julit ca tegoon ni muawiya du ab julit dañ leen war a rey waaw gannaaw bu ñu reyee sayyiduna aliyun xasan doomam négocier ak muawiya ñëw jaayante ak moom ba jaayante ak moom ñu tuddee ko amul jamaa at mi jullit yëpp booloo nag mi ngi nii xewal am na léegi ña bokk ñu tudde leen ahlu sunnati wal am ci chia yi ñi toppoon Seydina Ali ñu contre ni ni ni Hussein ni Hassan lii ñun d'accord ci ñu tudde leen ar rawafid léegi ñaari kuréel yi ñoo amoon kuréelu as sunna ahlu sunna ak as chia ñaari kuréel yi bi dina demee bay xajale ko moo am waaw ana lu andi ñu dem ba ay jamono chia tas na téeméeri tas ñu ñëw fii ci ahlu sunna so sos nañ ci fi mu toll nii assofiya sos ci assalafiya sofiya leer na xaj na ña ko daan ñañ ko tudde woon dañ daan sol nangam di jéem a dëddu àdduna di sol dari xar di nangam nangam moo tax ñu tudde leen assofiya waaye assalafiya lu muy tekki assalafiya assalafiya docteur Saïd Ramadan al Boutiyu dafa taalif benn téere tudde ko assalafiya marhalatun zamaniyatun mubaraka la mazhabun islami wax na ne asalafiya am jamono la temps bu baax waaye nag du am ngir daal di wax ne li tax ma ne du am ngir fam ana fan la soso ndax yow saa boo nee léegi asalafiya damaa jubloo topp asalafu sale soo fi yóbbu naa loolu damay itam damaa topp jubloo topp asalafu sale asalaf li muy teg mooy ña jiit woon boo ne ñu baax ña woon laa jubloo topp moo tax moo tuddee sama bopp asalafi soo fi yóbbu ne la man mii ci loolu laa léegi docteur Rama Saïd Ramadan dafa wax ni ay jamono jaami azhar njàng mi dafa yàqu ay turuxu suufiya feeñ fi yoo xam ni it inxiraaf bu metti daf caa am ci biir loolu Jamal Din Afghani Cheikh Mamadou Abdou ñoo jëloon ni dañoo bëgg a defaraat yëf yi delloo ko ca ca asalafu sale ca ca yoon wa nga xam ne asalafu sale ci lañ jaaroon tuddee seen bopp asalafiya wax nañ ne biñ tuddee seen bopp asalafiya jamono boobu fekk na Cheikh Mouhamad ابن عبد الوهاب ووتي تنجد دعوة الإصلاح لكن ندني دي لن الوهابية الوهابيون بعد بابو نقاري لن نجرب بنك وخير دي ملني دي نيو وير واتبتي جمي محمد ابن عبد الوهاب تفاك نيوم جبلوين لون لن جبلوين موي وير سين بواتي تي نت نباح نجاك نتا الخرون نسلاس الأولى لكن بلن لي نقري الوهابية جينا دواتي جينا دواتي ñu jël baatub asalafiya ba lañ ñu sose ca Égypte tarawii ci ko ñoom ñoo ko tarawii ci ñoo ko gën a tasaare loolu moo waral ñaare daanaka sax xuloo bii am ci diggante asoofiya ak asalafiya yii saa doo wax asalafiya waaye asoofiya wal wahabiya nga wax ndax ña sosoo ci Muhammad ibn Abdul Wahab du ñoom rek ñoo di salafiya waaye nag ñoo def tarkiis ci weddi tasawuf di seet nu mu gën a ñaawe ñu di ko ci wax di seet di jàngale sax ni xeex ak ñoom moo gën a yàlla xeex ak yéefari loolu moo waral ñaare ñiy fayu ña am habitude fayu bu ñuy fayu ci ñoom la ñuy fay waaye nag damay wax nii euh, tuxal werante ya am ci diggante asalafiya wa sofiya loolu sax euh, ñuruma woon ndax euh, sëriñ bi alxuraan daf noo jàngal ni wa isa xaatabahumul jaahiluuna xaalu salaam te gëm-gëm dafa for bi nga xasee gëm nangam am ku ñëw saaga ne la du dëgg lam la ca jàngal mooy bul jóg di xeex moom waaye waxal luy indi jàmm yow ba jàll loolu la leen sëriñ bi digaloon kon euh, li ma bëgg indi rek mooy wax ji nga xam ni boroom xam-xam yi neutre faruñoog tasawuf faruñoog leneen dañ koo bind xool xippi seen i rek xool tasawuf euh, wax ko ca la ca jëkk mooy imaam euh, Zarruq ca ay xawaa itam ci terme alxawaarib moo ku ñu wax ak tata iyo dañoo tuxal jële ci imam malik radiallahu anhu baat yii mu wax ne man tasawafa walam yatafaqah faqad tazandaq wa man tafaqaha walam yatasawaf faqad tafassaq wa man jamaa baynahuma faqad taxaqaq loolu mooy képp ku sóobu ngirum tasawuf te boole wa ca fiq ab zindiq nga waaye képp ku jël fiqub kese te boolewoo ci tasawuf ak faasiq la képp ku bu leen boole ñoom ñaar kooku mooy muhaqiq moom la sëriñ bi woy ci masalikul jinaan ci ne waman tasawafa bila tafaquhi waman tafaqaha bila tasawufi fa du tafassuqin sarihin faarifi waman ta faq waman tasawafa بلا تفقه ومن tasaw ومن تفقه بلا tasawufi fa تفسخ صريح sarihin ومن يكن بعكس ذا فإنه إلى تزندق أمال شأنه ومن لفقه وتصوف جمع فهو الذي حق له أن يتبع لولو مم لن تخل أي نقل يلا زرق تخل كتي إمام مالك موك كان التتائي نكرنا الشافعي من وخون يوم نه شافعي نانا كخي أبصوفي بلا بتنغرف كي دي موم li mu toxale ci saafin yi mooy tëggul tasawuf ngañu ko dañuy tasawuf ànd maak ñoom ñoom lu yàgg waaye ñetti mbir jànge naa ko ci ñoom li ñuy wax ñoom soofa yooyu ni waxtu jaasi la boo ko dëggul mu dagg la bopp jariñoo naa ko ci ñoom ak li ñuy wax ni sa bakkan boo ko soxlaalut ci dëgg mu soxlaal la ci ay caaxaan ak li soofa yooyu wax ni ak ñàkk ak mucc la moom loolu la wax ni moom laa jàng ci soofa yi waaye gisuma fu mu leen wax lu bon imam ahmad mi ñu waxoon rek ni dafa tere xaari ab ab taalibam ni ko bul àndateeg xaaris almuhaasibi ba tey xaakim ak xatib ci sanad bu wóor bu wér jële nañ ci ku wax ismail ibn ishaq assiraaj mu wax ni ahmad ibn hanbal dafa ma wax ni ma dégg naa ni xaaris almuhaasibi dafa bari lu muy nekk fi yow nee na ma ni ko waaw mu ne dama bëggoon nga indi ko sa kër te fexe ba invité ma teg ma ci béréb boo xam ni danaa dégg wax nee ma def li mu wax bi xaaris ñëwee mook ñi àndal ñu reer julli gee toog ci kanamam ni cal ba guddi gi xaw a xaaj bi guddi gi xaw xaaj xaaris tàmbalee wax bi muy wax ñoom ñëpp ñu ni cal ba mel ni ay picc dafa tong ci seen kaw bopp yi am na ci ñoo xam ne dañuy jooy ñii di daanu ñii di yuux nee ba ma demee ca saal ba Ahmad ibn ba nekkoon damaa fekk mu jooy ba xaw a tax bu saw daal di ne ma xawma woon ni danaa jis ñu mel nii xawma woon ni danaa dégg ci kuy kuy wax xaqiiqa bu mel ni bi kii di wax bi ma waxee loolu nag ni ma nag gis naa ni yow nag waroo di ànd ak ñoom ndeketi kon bul ànd ak ñoom ji am na lu ko jiitu dafa jooy ba sonn ni ko bul ànd ak ñoom li tax nga xam ne ñee ñoo ko wére waaye li kii wax moo wér xaafid ibnu hajar dafa wax ci téere bi ñuy wax tahzibu tahzib ne li tax mu tere ko ànd ak ñoom dafa xam ni am xelam ëggul ci lee ñuy dund te ragal na ne maqaama mu xat a xat la moom xaaris moo wax loolu maqaama mu xat la moo xam ne ñëpp mënuñ ko sóobu te ragal nañ ne ku ko sóobu bu ko sóoboo du ko mën a jox ak xam lii moo tax mu tere ko ko loolu mooy li ci xaafis ibnu hajar leeral ñu war koo gën a mën a jàpp ca ka jekki-jekki rek wax ni imaam ahmad newoon na ab taalibam bul àndateeg xaaris كي رواية بلير لأنه نكنون عيسو الدين ابن عبد السلام تي قواعد الأحكام دفعني يون وين الدجار بور دفع الخلم موي فخه با سيتال خولم تي ليپ لو كاي سوري يالا فخه با تكايال خولم تي ليپ لو كاي جيغاني يالا خم خم بي نيت دي جار با خم لول نك موم لا نيي تودي الحقيقه لولو عيسو الدين ابن عبد السلام موكو واخ تي الخبار دادي واخ ني حقيقه اك شريعه دون تاغو toujours ñooy ànd benn mënu ca dem bàyyi sa morom ku ci wedd ben benn ku ci wedd benn ci ñaar yooyu ben mu doon faasiq mbaa mu doon kaafir loolu la Isuddin ibnu Abdisalaam wax wax ju màndu la ibnu Xaldoon mu arrix la dafa wax ni kuréel bi li ñu nekk muy kuréelu tasawuf naka jekk ca saxaaba ya ba jamono bi ñu toll nii mësuñoo jàppee lenn muy dëgg lu dul lool daal di ndax du dara lu weesu sax ci jaamu yàlla jëm ci yàlla wan ginaaw mbindeef yi wan ginnaaw rafet rafet ci àdduna ak taari àdduna dëddu li nit ñi bëgg ci ay bànneex ak i daraja ak i alal nga dëddu ko woon ko ginnaaw ak wéet di jaamu yàlla ci xal wa te loolu dafa dajale woon saxaaba yi kapp ñëpp ci loolu lañ doon dund laa di wax nag bi ñu ba àdduna dugg si ba ñu bare bari wiire bëgg a yàq lañ doon dund ci la aw nit jóge nag sàmm loolu ñu leen tudde ay soofi loolu Ibnu noonu la ko waxee Xurtubi jële na ci Abu Bakar ak Tortoshi daf ko nettali ba tey ni dafa am ku ko laaj moom ak Tortoshi ni ko waaw dañoo gis mbooloo moo xam dañuy tudd yàlla di tudd yonante bi waaye nag dañ koy def mu jàgg ñu jóg di fecc ba ñàq ba am na ñoo xam dañuy mujj sax daanu xëm ñooñu lañuy laaj ba xam ndax loolu te ñoom nañ ay soof yu lañ ndax loolu dëgg loolu dëgg mun leen loolu ay caaxaan la loolu ak réer la loolu du dara ndax al ndax diine alquran la ak sunna waaye fecc diine yéefar yi la jël ab galen di tëgg yit mun a naafi naafeq yi ñoo ko indi woon ngir bëgg a dox jullit yi ak alxuraan daal ni loolu ku koy def ku ne ku fi nekkal diine ku ne war nga leen tere lu mel noonu kon loolu ba tey façon la bu mu weddi waaye nag as-Sinqiiti yi ba muy leeral dafa wax ne waxoon naa ca suuratu Maryama ne te suuf yuy am na ci ñu nekk ci lu wér amna ci ño xamni lañuy sukkandiku lépp génnul alquran ak sunna yonente bi ci lolu ci lañ faje fe xol contrôler ci yàlla woné ci seen mbir lo xamni kenn du ko nattable daal ni ku melni ni ibn hatiya abu ad-darani awn ibn abdullah sahl ibn abdullah abu talib al makki abu usman an naysabori yahya ibn muas ar-razi junayd ibn muhammad mune ñi ñëpp ñu daan faj ay xol lañu kon ku jekki-jekki rek ni tasawuf dara wéru ci loolu nee na atte bu jàng la boo xam ne yëlul sax kenn di ko wax loolu ba tey bi xurtu bi yu nett lee loolu la ci assenritu yu teg ab euh, mu fassir bu mag la ibnu taymiya ba tey li ma gis mu wax ko moom mooy ni su tasawuf moo ngir yi ci des yëpp yam am na lu ñuy tagg am lu ñuy ŋàññ lañ cay ŋàññi mën naa am ijtihaad lay doon ca ka def mën naa bañ a doon leen ijtihaad daal ni waaye ijtihaad bañ def ñoom soofi ñoom soofi yi ca lañ def ñoo fuqahaa yi ñoo ci yam ndax fuqahaa yi am na ñoo xam ne reconnaître luñ ar xalaat kooku ba tey wax jooju luñ mën a dégg la lu maandu la daal di wax ne nag ci biir ngërum tasawuf nag bari nañu ci feeñ ñoo xam ne ay tànnee fi nit yàlla la ñoo xam ne mën su leen lépp kon loolu mooy borom xam-xam yi nga xam ne dañoo mel ni jubluwuñu woon a far fii jublu wo wi wona far fee loolu lañu wax ñom ci tasawuf moy ni buñ ko xolé muy haqiqa ñu d'accord ko buñ xolé mu doon ay caaxaan ay mom ñep ñep ma maas d'accord wedd ko kenn d'accord ci ay caaxaan soofi yi ana lan lañ waxal seen bop imam Junayd dafa wax ne suñ xam-xam bi ci alquran ak sunna lañ ko tek shazali wax ni ku wote ci yàlla te jaro ko ci yoon wi yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon wote da ngay tapale Sahl ibn abdullah wax ni sun ciosan yi juróom-ñaari ciosan lañ am mooy jafandu ci alxuraan bu wóor roy ci yonent bu wóor di lekk lu lew de ak fekk ay lor ak wattandi ay mooy yàlla ak di tu ak àq jàmbur yëpp nga ne nga ko joxe moom juróom-ñaari la wax ni mooy njërum tasawuf xuseyri yu wax ni bokk na ci melokaani tasawuf yërmande ak ñawant ak di bale ak ñàkk jàppal kenn dara mooy loolu seeni jikko la ximaar yi moom wax ni alxumaar yi wax ni tasawuf ponk la ci ponk diine yi li ko tax a jóg mooy fab sa mbir yépp jox ko yàlla ak wéeru ci yàlla ci mbir yépp ànd ak nangu dogalub yàlla bañ a neenal lu war bañ a def lu ñuy lu ñuy tere docteur Ramadan Bouti wax na ni bu fekkee dangaa wax ne tasawuf dëgg la waaye li ci dugg ci ay bidaa ak caaxaan dafa bari nee na boo waxee loolu mën la sant nañ la bu baax jëf ca fiir gi nga fiir ci diine ba bëggoo lu dul noonu rax ca waaye nag ay caaxaan yu dugg si du tax nga déj ak dégg sànni dangay ngay xool lay ay caaxaan nga jéem koo sempi te bàyyi fa dëgg ca tax waaye bul dikk ni tasawuf nañ ko dindi lépp sànni ngir ay caaxaan di ca tax loolu ba tey xel daf koo nangu Sëriñ Tuubaa ak tasawuf nag buñ ci wax duñ ci mën a guddal ndax dafa wax moom ci jëmmi boppam ni sama maqaama fàddu na ku dul yàlla ak ku dul yonante غابت مقامي عن سوى baaxil الكريم وهن وسيلتي mu mel ni daf koo firil sëñ Basiru ndax sëñ Basiru nee na sëñ Tuubaa daf ko wax ne ko képp koo xam ne bëgg na maa xam te bëgg maa xame ci histoire jaar-jaar yi ñi fi jaaroon ak diw ñii la meloon ak toggale ay ay mbir képp ni kooka moo ma gën a réere ci àdduna bi nee na ku ko bëgg a xam bëgg koo jaar ñi fi jaaroon rek nee na ku koy umbale ba abadan nga def nee na sëriñ Tuubaa moo ko wax ne ko sama borom moma fete wol bopam nima ko ñak boolee ak dara non la tëje yoon yi jëm ci man yépp ba kenn xamul ci man dara sharif habibullah wax na ni ben bëkk neek bu bokkon ci bëkk neek Sëriñ Tuubaa daf ko wax ne ko Sëriñ touba dafa wax ni tuftu bi xadiratil awliya dama wër ñagu wali fa ida bi kulli waliyin dakhala min babi gis na ni wali bu ne dafa am buntu bu mu jaar وإذا بعبد القادر الجيلاني دخل من باب التواضع جسنا عبد القادر الجيلاني تبنت ترحلو تلا جار ولم أزل خارج الحضيرة في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من وراء الحضيرة فأدخلني نانا ما نيو جيس نياك بي نيو تاجكو كوني امنا بونت بو جار مان ماي ليغي يونت بي دي وير نياك بي di liggéey yonent bi di wër ñag bi ba yonent bi génnee loxoom ca bitim ñag ba ni ma sëq ni ma cëpp ci biir xiila man haasa xiila wa yaxluqu maa laa taalamu nee na bañ ne waaw kii kana nee na ñun leen danañ bind nag lu ngeen xamut xiila fa futiha li qaala fa futiha li baabu lam yuftax li ahadin qabli wala yuftaxu li ahadin baadi wa rudda kama kaan nee dañ maa ubbil bunt boo xam ni mosuñ ko ubbil kenn jëkk ma te duñ ko ubbi laat kenn sama gannaaw te dañ ko delloo mu mel na mel waaye kon bu ñuy wax ci moom dañuy wax ci cadre bi biñ mën a jot ñun muy ay jikko tànn benn benn ci jikko ndax Serigne Touba dafa àggoon ci njobaxtanul jikko yu rafet ak sax dafa àggoon ci njobbaxtanul jaamu yàlla àgg ci njobbaxtanul dëddu àdduna jàmm yàlla gi dawul dog guddi ak bëccëg suba ak ngoon dafa mel ni Sëriñ Tuubaa dafa jaayante woon ak boromam ni am njàppam du toj mukk te du jàppaat na ca si jamono bën da yoru njàpp Sëriñ Tuubaa dafa mel ni ku jaayante woon ak loxo bi di nàcc waaye daf koy wax ne ko nàcc ak ñàkk nàcc laa ci yemale waaye li ma sama borom digal danaa ko def loolu lépp nag teewul daan wax ni bu leen teg seen bopp lu mel ni li may teg sama bopp bu leen ko teg seen bopp yéen jaar leen ci fi ñu leen jaarlu rek li ngeen àttan ngeen jël ko li des ngeen bàyyi waaye bu leen ma jéem a toppal di daan woor koor lu cul bisu lu dul bisu ayit yi daanaka dawul ko dog Sëriñ Tuubaa ku bañoon jëw la ku bañoon rambaaj la àggoon na ci béréb boo xam ne kenn ñi mawuta taxaw di wax ak moom ci jëw mbaa ngay rambaaj bëgg gi mu bëggoon yonente bi sallallahu alayhi wa ab yamukaay la ndax nafsi wa diini summa ahli wal walad wadiatun laka moo ko wa maskani laka wadiatun abad jublu maa wax boobu sax bi ci des bi jublu wax mooy ko waxeete jublu maa wax boobu waaye bii dafa jaay deret nafsi dami wa ahli dami wa ahli jërëjëf dami wa ahli wa awlaadil fidaa ulaw sama deret sama njabootu bopp samay doom ñëpp jote naa ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam googu cofeel kenn musu ci àgg séddale ab dundam ñaari xaaj utiyahu ilaahi xaadiman lil wasilati muy jàmm yàlla liggéeyal yonent bi